nuy nañ leen bu baax a baax di leen ziar di leen jaajëfal te di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla suñu borom daal di def jàmm ci réew mi waaye tamit yàlla daal di def tamit réew mi daal di taw ah su ko defee Sénégal daal di sedd ndax jamono juñ toll nii moom réew mi tàng na lool lool lool xam naa ci dara waaye tamit amaat xam na ci dara. Hmm? petit est-ce que duma <laughs> jël amaat ñu may ko soxna su baax rek yóbbu ko États-Unis <laughs> wala Dubaï mu daal di seetu benn deux mois. su ko defee Babacar wala Faa di cadré man may wër di wax <laughs> moo ngi noonu ma daal di seet si nag eh, sama yaay la sama xarit sama tante sama mag sama lépp ku baax koo xam ne bi ma jàppee ba tey bàyyiwu ma mu nekk ku ñàkk ki ñaan nekk gor nekk garmi waaye dara këfu ko macha allah képp ku gis naan ko ba xam yaa jur bàjjan ndax dañoo bëggante ba dañoo dem ba dañoo niroo muy eh, docteur Dieg ji ma su ko defee dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu fas yéenee waxtaan. <laughs> tànn ci ne ma nuyu naa la. fay naa la bàjjen. macha allah xale ngay musa doon soo bu ma la gisee da nga gën nekk xale. waa gis nga yii de laay def ak yeneen. waaw waaw du ma mos a doon mère. doo màgget tamit na. xanaa xam nga ne màgget ci yóor la. ah bon yóor mooy màgget. nga jàpp. Mhm. Mm-hmm. ñoom soo ne dañoo màgget de. mooy màgget waa ñoom ñoo màggetal seen bopp rek seen yóor daal di màgget. Mm-hmm. bu ko defee ñu daal di bijaaw weex taal di xubi daas. Ah ah, du jékki-jékki rek ñëw. bu fekkente ni si dangaa bare stress di xalaat xalaat bu dul jeex bëgg jël sa bopp ne def ko mag waa toujours mag ngay doon te ñi li lay rajeunir nag taarkaal la mi ngi fi. en tout cas yaa ngi yaa ngi de daa mel ne maa la gën a màgget. <laughs> bàjjan na mën naa la torop torop torop giar la jox la sa wàccuwaay waaye nuy seen site bi macha allah bi nga xamante ne sii nag ah ñu ngi ñu ngi koy suivre mm-hmm. yàlla na gën a jëm ca kanam. ca kaw ca kanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi noonu yow sama xarit nga loolu yàgg na démb la du tey yàgg daba aca <laughs> moo ngi noonu Tante Sirama di docteuru jeeg ji ñu fas yéenee waxtaan ci éducation xale yi mu mel ne xale yi léegi dañu changé wala sax doo sax comprendre parce que ñeneen ñi dañ naan si parent yi la ñeneen ñi ne déedéet ci yariñ bi la parce que des fois xale yi dañuy yaroo seen bopp gis nga li nga xamante ne nii moo am ci bag bi dëgg la Euh, li may wax à chaque fois rek ni àddina moo yàqu àddina moo yàqu bàjjan waaw parce que lii ngay gis ni gisoo ko woon ku fi nekk mag rek nekkoon nga xale mm-hmm. ñun ñëpp jaar nañ ci man mi jaar naa ci keneen ak keneen mm. macha allah te fi nga xamante ni si foofu lañu suñuy parent tegoon ah macha allah macha allah tegu nañ ci tey jii ba ci teg suñu njaboot. waaye nag liñ naan guy day jër buy dana guy dana jur xetax ndax xale léegi li ñuy wax à chaque fois njabootu kanaara da ngay jiitu da leen di jiital rek seen gannaaw ñoom daal ñoom ñooy doxal loolu moo waral àddina bi yàqu. parents yi am ci part de te bu mag a mag a mag a mag. ndax mënoo jur sa doom ba pare balaagal ko bàyyi ko. il faut ñuy suivre xale yi di leen xool. Mhm. moo tax léegi li am am loolu moo waral àddina bi yàqu carrément toujours ma wax ko ne da yar sa doom ci sa biir kër du dem du dëkk mhm. mais xale day jóge ci àll ba ñëw daal di lay yàqal sa njaboot léegi nag ñun parents yi nañu vigilant taxaw nag di xool di seetlu aussi ndax ay doom boo ko amee te doo seetlu muy góor di jigéen di mag di ndaw boo dul seetlu say doom à chaque fois da ci am lu la naqari. d'accord kon nañu vigilant ci xale yi. d'accord ce que xale yi tamit mun nañ leen a nañ leen la laa ko mën a waxee mun nañ leen a topp parce que des fois xale mun na ñëw gëmloo na la yaay par exemple maa ngi jàngi maa ngi wàcci ah damay dem kër amaat dañuy réviser ma nag moom su ma paree damay ñibbi si fekk na demul kër amaat moom jàdd na kër faa ñu dem dem seeti petit wala ñu dem seeti kaneen. xanaa amaat moomu xamoo numéro. xale yëpp a yor téléphone. waa mhm. sama doom bu demaa kër waxuma kër amaat ndax amaat góor la. Mhm. na ne may yaay kër bàjjan laa jëm te ma xam bàjjan te ci seen biir attention. waaw waaye lépp du tee ma topp la gis nga paaka lu mu ñaw ñaw du tee ñu nàmm ko sa doom lu mu réglé réglé lu mu miix miix de ko topp di ko xool di ko vérifier boo jëlee sa doom bàyyi ko ak téléphone am mu côté lépp. mënoo dugg amoo fenn accès bàyyi sa doom balaagal ko mu nekk ci néegam 24 heures sur 24 du génn ni miix ci néegam nga naan demul fenn moom de du dox. te doo dugg di ko xool. Mhm. boo jëlee sa doom mu yor ab sakosam léeg bifal sakos bi xool sakos ba la ne. léelée léeg mel ni ku koy lemal ay yéreem di lemmar ci di xool. temps la de. naam sa temps waaw. suñu yaay yi ñoo ñoo ëppoon jot. ñoo ñu gënoon a jox jot. suñu yaay ñoom dañoo amoon jot ci ñun. kon ñun tamit nañu am jot ci suñu doom te bu njëkk melul woon nii waa léegi yow lu ne yaa ngi koy gis lu ne yaa ngi koy dégg léegi yow doo doo doo doo jël sa doom nga def li nga war a def boo jëlee sa doom defoo li nga war a def bu ëllëgee mu jooyloo la te bu la jooyloowee fompal say rangoñ ca nopp bu génn di ko wax ndax defoo li nga war a def. am na ñoo xam ne seen doom lu mu def neex na leen su ñu indee doom sax daf leen di neex est-ce que nekkul ñoom ñoo yàq euh, seen ay doom ba ñeneen ñi dañuy roy daal ne ah yaay yow de diw yaayam di ko wax dara lan moo tax nga may sonal wax dara parce que roy daaka dafay am que kee yaayam di ko wax dara man sama yaay war ma wax dara. <laughs> xam nga li nga wax nii dafa am ko may fàttali benn euh, daam boo xam ne doom ji dafa doon tërëre di tërëre di tërëre yaay papa ji di li bàjjan bi di wax fii. nijaay yi di dóor waaye mu ni moom mu ni mëmm rek ah yéen ay kiyam wax leen ak moom rek doom ji xëy xëy rek daal di ëmb bi mu xëyee daal di ëmb nit ñi mer ku ne di kii mu naan man daal moom sant naa yàlla daal sant naa yàlla ndax man am naa ci sama sët. yaay ji ma doon wax loolu. am naa ci sama waa joojo yaay jan yaay la est-ce que yaay jooju wér na. sant naa yàlla daal man ndax man am naa ci sama sët. mu encouragé yaa encouragé sa doom. bu ëllëgee ka topp ca moom bu defee loolu bul mer xam nga dañu tegale bu jubee te daanuwul ba jiitoo jub waaye yow ki nga xamante ni si mooy sa taaw di def loolu di def tànk yooyu nga naan sant naa yàlla am naa ci sama sa jël xale ba di kaf kab kab kabee di mere ña nga waa di mere ña nga xamante ni si ñoom ñoo doon jël sa doom jooju di la ko tegal ci yoon gis nga jaboot ku koy waxal doomam nangam ak nangam wala mu gis dara daal di ñëw ba ci moom daal ko ah yow sa doom ji fa ma ko gis wala li ma dégg mu di ko wax wala ka gis mu ànd ak moom neexu ma te nag xoddikut bala ngaa lakkale bu ma sañoon wax ak sa doom waa kooku bëggu la. bien sûr da ngaa saytaane soo ko defee da saytaane nañ ñu may jàmm. Mm-hmm. dañ naan nañ ñu may nañu may jàmm. Mm-hmm. am na loo xamante ni si moom mbubb moo sol te jotu la bu ko solo sa nawle. am ñoo xam ne kenn du laal seen doom doomam moo gën a ràkkaaju doomam lu ne lay def doomam lu ne lay def kon nag na ma may jaam te cëppe ma bu woowee doomam war koo yedd xam nga lu may wax doomam kon bépp ngi lay ciir ci dëkk bépp kii ngi naan dangay dox ñii ne ngi naan dangay taxawaalu ñii naan toogoo ñii ne nañ dangay làqu di tux ñii ne nañ ñàngam dañ laa bañ waaye seeni doom lañuy def xamuñu ko fekk yow ñoom yow la ñuy defaral waa ah, kon fu wànnent di mu mujje fu wànnent di wére mhm. duma ma sa wér looloo tax léegi kenn waxatu kenn dara buy gusee sa doom mu ŋànkob cigarette ci mbedd mi wala mu lon ko góor wala muy tëdd ak góor ci mbedd sax kenn du ŋaan mhm. dangay noppi te suñu mag ñi bu njëkk bu sa yaay daan dóor boo dawee di làqatu ci kii sax kooku dalay jàpp dóor ba ngay bëgg a jàppale daan la am téye sa doom rekle ko yar ko mhm. yaay ja kontaan ci kooka daal di cay kontaan waaye léegi dangaa ñemee wax dara doomi jàmbur looloo waral àddina bi yàqu. sa nekkul xaalis liñ leen di ñëw di leen jox ñu xam ne suñu doom parce que ñoom tekki lañ koy tuddee am na oto sama doom am na kër sama doom mi ngi may teral te des fois sax duñ la laaj fan koy jëlee est-ce nekkul loolu moo tax tamit day neex si ñoom ñu daal di bàyyi mu daal di jàll. lan mooy lan mooy xaalis. Ah, peut mooy xaalis mën naa ne ndax am na ci ñu bari ñoo xamante ni si seeni doom lu ñu mën a indi duñ ko laaj fan la ko jëlee. yow nga doon xale bu tuuti liggéeyoo liggéey bu ñuy wax jàng ngay def wa ilaa sax jàngoo yàq nga sa jàng nga génn ni da ngay dem salon wala damay génn dem fii wala damay génn dem yaay daal man daal damay lijjanti dëkk bi daal moom wax dëgg yàlla kenn dootul toog rek ni yàcc yasar boo ñëw indi tatak ko xaalis téléphone bu gën a cher yaa ngi ko yore te sa ndey joxu ko sa baay joxu ko sa tante joxu la ko sa bàjjan joxu ko téléphone bi gën a cher téléphone bu génn nga ah. jënd ko cheveux bu génn nga jënd ko mhm. tabaski bu jotee léegi gis nga xale yi ni ñuy def kenn ku ci nekk solatul benn mbubb solatul ñaari mbubb mhm. dañuy sol ay mbubb mhm. def shooting macha allah fu nañu dugal ko fa ah, xam naa waa ji leen di waaj a takk mu leen ni financé rek waa ji mën na leen a mën na leen a bañ a financé waa ji mën na leen a financé mën na leen a bañ a financé te doo laaj sa doom fan la ko jële waa kon nag sa doom bu yàqoo bu ko jiiñ kenn xamal ne yàlla. Mm-hmm. am neex na leen. waaw ah, mi ngi noonu. Mm-hmm. moo tax it. d'accord lu ñuy mujje jooy rek. Mm-hmm. yorum téléphone bi nga xamoon ci ne nii rawatina xale yi jàng comme sànq li ma wax parce que bu njëkk dama daan dégg ñu naan ñi nga xamoon ci ne nii ñoo ñu jiitu ci école ah jàng ba am li ñu am dañ naan ñoom dañoo ragaloon sax yóbbu téléphone école ba tey ñuy yóbbu téléphone ñuy nangu seen ay téléphone parce que wax nañ leen leen bagu ren bi même su dul bagu ren bi sax téléphone waroo kaa yóbbu si saal d'examen bi mais élèves yi ñenn ñi nga xam ne dañoo sant jaxate ñoom laa ko sañ a wax dañuy jël seen ay téléphone def ko ci seen ay tubay wala ñu jëm ko dugal ci seen ay suuf su soutien pour lan pour suñu demee ñu leen di envoyé épreuve yi est-ce que foofu tamit jàng am na fa loo mën a nga téléphone defar na lu bari waaye yàqu na lu bari. téléphone yi dañ dafa représenter ordinateur yi nga xamante ni sii moom lañu daan utilise xale yi dañ daan dem cyber kafe lu waaw daan fay di fa génn seeni leson di ko fa jàng waaye léegi seeni téléphone la ñu yor di ko jàng waaye nag bu fekkente ni si bac bi dafa jot ñu ni la sa téléphone bu mu dugg salle d'examen mm-hmm. waaye bàyyi ko fa waaye xamadi ak tricher tricher mo waaw bëgg a tricher moo tax ñu di ko yóbbu ku jàng kuy jàng doo bëgg a tricher danga naan samam xel doy na ma mhm. waaye bu fekkente ni si jàngoo toujours yaa ngi fo toujours yaa ngi buloo toujours yaa ngi waxtaan toujours yaa ngi kii daane ah moom bu bag bu ñëwee dañ koy dagg mhm. waa bu dagg bag bu ñëwee ngay cappi-cappi toog ci nen mënoo lu du tricher. loolu moo waral ñu yóbbu seen téléphone yi. mais c'est bien ba ñu nangoo téléphone yi waa léegi ku ñu nangu sa téléphone. liñ naan ku ñu dagg sa tuñum kaw faaw nga ree te ree force la. te bag bi moom force la faaw nga jàll ko. faaw nga jàll ko. faaw nga def ko te nangu nañ sa téléphone waa fooy tricher. mais ñi naan war ñu woon a nangu seen téléphone yi wala waroon ñu a bàyyi ñu def bac parce que jàng nañ ba 9 mois xam nga benn jour ñu bëgg ko yàq looy wax ci ñooñu. non mën nañu sax mën nañ leen a bàyyi ñu def bac. parce que jàng aussi dafa metti ndax 9 mois du 9 jours mais nii ñu def noonu la man ñoom laa àndal. man ñoom ñi nangu seen téléphone yi man ñooñu laa àndal. mais suñu nangoo seen téléphone yi tamit ah war a xool ci seen téléphone yi wala seen copain yi wala seen mag yi. wala ñenn ñi ñu compalool war leen a envoyé épreuve yi euh, léegi dans ce cas ñu nangu ko léegi nu ñuy def ñoom. ah nu ñuy def ñu toog <laughs> kenn kenn ku ci nekk sa xel sa xel ngay demee. Mm-hmm. boo jàngee dana feeñ boo jàngul day feeñ. Mm-hmm. moo tax jàng lañu wax te yow mbaa xam nga ne ñu ci bari ci école euh, privée la ñuy jànge xam nga nu sa baay di def ba fayal la ñi nga xam ne seen yaay leen di xam nga nu sa yaay di def ba fayal la. xam nga nu muy def ba jox la ndékki xam nga nu muy def la ba jox la paas ah. Mm-hmm. loolu lépp xooloo ko xooloo lenn. est-ce dinañ feeñ waaw est yaakaaroon nañ ne dinañ jàng dinañ nangu seen téléphone wala dinañ feeñ. waaw dañ yaakaaruñ ko woon moo tax ni c'est bien buñ ko defee ren def ko déwén bu soobee yàlla ak yonent bi déwén jéeg ña war a paase bac dinañ ñu yéeyee ñaari at yi jàll yëpp kenn ku ci nekk ña jàngul dañoo feeñ. ñu gis ne loolu dafa ba mais mais mais attention loolu dafa bari même daaw rek su fekkee dañuy jàpp tey suba ñu jàppaat parce que am na ku ñu fi jàppoon ku doon defal gelam. waaw épreuve bi tam soloon solo jigéen bi. léegi loo ci gis da gis ren ku ko def. ak ah, du ko def de. non non mais tamit yeewu leen mais yeewu leen loolu. waa mi ngi noonu lu ne fa am kenn du ko jéem. mais teewul ñoom ut nañ beneen solution. waaw ut nañ beneen solution solution bi mooy lan téléphone yi nangu nañ ko. léegi dañoo xel léegi bu ëllëgee beneen beneen bu ñuy def tamit xoolal ñi leen gis nga liñ naan jinne lu mu màgget màgget dese ngeleju bu jommal gone segam ñoom ñii di ay xale di ay élèves juddu tey ñoo mën a am xel rawatina ka jàng ba garaade ba am ay eh, eh, kiyam ba ba toog yow tey ji di la jàngal danga koo mën a jaar fenn mënoo koo jaar fenn. mais d'après li ñi di wax dañ naan dañ leen waroon a bàyyi dañ leen a yërëm. lañ naan loo muus muus sa goro gën laa muus. waaye loo muus muus kala jàngal gën laa muus. te xam nga lañ leen di yërëm ndeysaan président jury bu woon def lii lii la waroon def. ma ne man de kontaan naa ci président jury bi billaahi kontaan naa ci. ah nañu ma mere. man nee naa la weer wi yëpp ci xale yi laay waxal. ndax xale yu bon yi ñu doon def. xale yu tuuti yi nga xamante ni si gis nga coow li fi am. Ah, ci xale yi di di xale yi ndaw yi nga xamante ni si dañuy war a jàngi du ñu jàngi école yi li ci am gis nga ko. farantu gi ci école bi gis nga ko giwintu gi ci école yi gis nga ko bërki déem boo njaay ki jël doof bi di da def ko ci kanam di mam di master ba gis nga ni mu rëyee tan si waxtaan nañ sa euh, ak lii bi nu mu tuddati di sèche yi boo duggee boo demee toilette ba pare di sèche yi ñuy raxasoo ah. léegi xale yi moom la ñuy jël di ko di ko di ko di ko purger ci seen kanam di ko def ci seen kanam yi loolu pour lan est-ce que du leen mi ngi noonu moo waral feebar yi bari nee naa la weer wi yëpp ci ñoom laay dal bu yeboo ñu ma mais dama leen di wax dëgg. ndax gémmiñ bu waxul dëgg wax fen mooy li ñuy wax rek des fois li ñuy wax rek des fois tamit dañ naan parents yi la parce que comme li nga wax léegi léegi doom da nga ko war a contrôler xam fan lay dugg xam fan lay génn mais sa doom jàngi na maman dem naa defi groupe de travail kër Amar laa jëm ok parce que am na yoo xam ne soo nee kër Amar xamuñu sax Amar ñoom dañ lay bàyyi nga dem dama lay dóor ba xoj la damay xeex waaw man damay xeex man ah. man damay xeex ba nëga ni damay xeex barke alxuraan te li may wax samay njaboot xam nañ ko muy góor muy jigéen kenn bu ma ci yab parce que dooma yaakaar ba pare dama yab di taxawaaloog di def ay affaire lu waay di wuyoo da koy nuru damaa ne ci télévision di wax àddina yëpp xam ma boo wàccee raay tuuti am na ci ñu bari ñoo xamante ni si dañoo bëgg lu la cosit ba ñu taxaw daan ne docteur Dieg doomam nangam ak nangam ak nangam danaa wax ak yow delloo si la. waaye boo nangu la dégg damay jàkkaarloo ak yow te macha allah ku ma ci ne népp doo yëngu. yaay yi nga xam ni dañuy def contraire bi loolu leen di wax. waaw yaay yi nga xamante ne si dañuy def contraire bi bàyyi seenu njaboot balaagal leen rek noonu ñu mel ni xar mu amul buum fu ñu mujje dañuy jooy xàcc. boo bañul say doom jooy yow yaay jooy. àddina yàqu na bàjjan. yaay yi nañ delloo si seen xel yi yaay yi nañ xam ni jafte dafa metti jafte laa la wax deux semaines rek nga tàmbali di miir ak di wàccoog di lox bëggatoo tëdd ci kaw lal da ngay tëdd ci suuf fu mu gën a sedd nga tëdd fa la nga gënoon a bëgg dootoo ko bëgg muy dem ëmb biy dem ngay wéradi ëmb biy dem ngay wéradi ba dara teewul loolu mu mat juróom-ñeenti weer nga war a dem salle d'accouchement sa benn tànk nekk àddina benn tànk nekk àllaaxira ngay woo suñu borom moom doo nga fa des yàlla tiif benn onk sa doom mënula koo fay am ñoo xamante ni si seen mat day yàgg mën nañoo matu 24 heures am ñoo xam ne 3 jours am ñoo xam ne une semaine dañuy loppante chaque jour ñuy jaabante di leen yóbbu hôpital di dem di ñëw waa loolu lépp nga daj ko mu juddu nga nga taf ko ñu tafal la ko ci sa dënd mu neex lool. nga yor sa doom di kap kabe boo yoree weyu gudd danga koy dagg ndax bañ koo gaañ. boo doon léttu da ngay jël bu lépp takk ndax bañ sa doom microbe laal ko. Mm-hmm. di raxas sa ween ba mu set bala nga nga koo jox sa doom. di ko teete. di xool fi muy jaar di xool lii lii kat bu ma ko bàyyee fii bu sama doom ji raamee mën na koo fakkastal mën na koo gaañ loolu yëpp nga di ko puus te te sa doom ba mu ne guleet ni gën moo xam mu doon góor moo xam mu doon jigéen pattul làggul nga jàngal ko jaarale ko fi mu war a jaar bu dee jigéen waa nga dem nag ba sa doom màgg ak doom ni mu neexee ak ni mu mettee ak fi nga jaar yépp nga war koo teg ci yoon tegoo ko ci yoon jaarale woo ko ci yoon loolu dama koy bàyyi li tax damaa bëgg doom bu ma ko xee dara day day kii ma nga tëju de lekkul de est du xaru est-ce que du nàngam loolu nga bëgg doom la waaw am na ñoo xam ne nee nañ dañoo bëgg doom noonu waaye doom boo ko bëggee danga koy teg ci heure temps doom boo ko bëggee danga koy yar bu dee bëgg nga ko ku ñëw mu jox la cër fu mu mën a dem ne fa te kii wayut yàlla na yéex day rot ndax ñun ñu gën a tuuti seeni bakkan day rot am nañu dund ba màggat te amuñu doom bu ñu ko amoon téye ko mm-hmm. yow yàlla jox la ko téye ko waaye tegaat teg ko ci yoon bu ëllëgee boo fi jógee mu mën a xam ngay fi muy jaar booleeg nag di waxtaan ak sa doom loo xamante ni si danga koy bañ ci sa teew boo dëddoo bu mu ko def. su dee doom ju déggal ndeyam la. waaw bu dee doom ju déggal ndeyam lépp ci communication la. déggoo li ma la wax lépp ci communication la. waxtaan ak mais xale yi nga xamante ne nii tey dañoo nekk si école yi ah parce que un jour benn élève da wax naan damaa dugg si toilette bi di dem douche euh, fekk fa euh, ku jigéen ki ci toilette ku góor yi laa ko fekk ñoom ñaar ñu nekk ko ca ci benn école publique. loolu tamit kenn rafetlu luwu ko. ah nga yaakaar ñoom lan moo leen di poussé ba ñuy def loolu tey di wàcc di def ay group di def naka sudul noonu ba yëkkati di utiliser ay parfum ay doof di ko def seen kanam yi tamit. déggoo ma la wax nee naa la àddinaa yàqu xale bu gën a tuuti moo gën a bëgg góor. est-ce que dàq des fois bàjjen am na far xaar am far. ak complexe booleeg bëgg góor lu def dama koy def góor la bëgg. gis nga seen téléphone yi buñ ko yoree loolu lañ ciy def woy yu bees yi yàq na àddina bi xale yu tuuti yee koy sinap te woyu mbëggeel dong la lépp woyu mbëggeel la woyu bees yi xale bu la gën a tuuti yow da ngay jot sa téléphone sax tiimale ko sa doom mu di ko woy xale bu tuuti ku muy bëgganteel bay sinap woyu mbëggeel nañu waxante dëgg te yaay yor sa téléphone yow téye ko nii di sinap sa doom ah ni mu mënee woy bi ni mu nàngame fëggoo ko pes ni ko dama nga jàngi waa lan moo tax woy mbay do <laughs> woy mbay doon dey xale yi duñ ko sinap daa di muuru waaw <laughs> ah li tax Umu Kalsum woyam yi kenn xale yi duñ ko sinap yii daal la ñuy sinap woyu mbëggeel foo leen fekk ñi ngi ci kat ci kari di nàngam di kii zoom zoom mooy tax ñu jar nag ah moo tax ñu jar. waaw waaw xale bu tuuti. des fois eh, xale bu ndaw lay doon. Ah, bu ndaw. xale yi ndaw lay doon. jamono. xale bu ndaw lay doon. wallahi azim waxuma dara mais ne ci tiktok gi lëmbe ko di def yoo xamante ni si xale yu tuuti seeni nday bàyyi leen ci loolu pour lan yow da ngaa fett ci xottum nen bay bëggante bay woy woyu mbëggeel woyu mbëggeel yëpp xale yi mën nañ ko wallahi azim mhm. moom la ñuy sinap moom la ñu bëgg. d'accord loolu pour lan dégg naa ci keroog wooy woo xamante ni si sama doom ji di koy dama ko ni kàddu gi moo ko déggaatee dama lay lekk. ban mooy la wóor na yàlla. bu guddi gi xaw ma lan bu bu guddi gi xaajee moom xaw ma lan. am na nuñ koy mi yaa gisee. na metti na yàgg na xale bu tuuti. Eh, mais nañu waxante dëgg. ah mi ngi toj dëkk bi. waaw waaw baax na moo tax àddina yàqu mais nañu waxante dëgg bàjjen. parce que xale bu tuuti naan na metti na yàgg na tàng xaw ma lan ak la ah kii ah! woyoon nañ fi déggoon naa fi way woowu dama ko interdit foofu sama kër. Uh-huh. Euh, man Carlou D sax laa ko tegoon ñu ne ma du moom. Uh-huh. xaw ma lan sàcc ma bëgg naa xaw ma lan. irima ma ne ko irima. salfaañe ma xale yu tuuti naan irima ak salfaañe ma waaye léegi yow loolu xale boobu amul fit. waa dégg nag loolu moo yàq àddina. da koy laajte sax après la mooy irima. loolu waaw. dirima bëgg naa. irima bëgg naa salfaañe ma bëgg. yàq ma yàq ma bëgg naa. mais na nañu nañu xoola nañu rafetal tamit kàddu yi tamit xam li ñuy wax. waa solo ah. dëgg la. doy na waar. Mhm. war koo wax suñuy borom kër. xale yi tuuti di ko wax waa léegi xale yi kan lañ koy wax. xale yi ku ñuy wax loolu. waaw léegi kon yëf yi doyul waar. Ah, doy na waar docteur mi ngi noonu doy na waar daal yàlla ñu yàlla suturaala ah. lim ma sam benn mag di wax damaa ragal sax am doom fii. Ah. mi ngi mi ngi noonu daal waaye foo mën a nekk rek yàlla yàlla aar njaboot gi. suturaal ñu ma ñu gudd fan liñ naan ci mujj jamono lañ nekk waaye daal yàlla baax na. mi ngi noonu euh, fi ñuy tëjee nag mooy euh, deuxième point bi gis nga kii di euh, boroom këru Ndeye Gueye ba mu bëree nag amul ndam coow la daa dinay bëri lool waaye am na sëriñ boo xam ne daal daa waaw mu daal di tàqalikoo ak jabaram mel ni moo bindoon sëy ba nag ah, su ko defee dina daal di mën a am nag ndax booy baa Djiné boobu ba léegi daal mënut a fexe rek ba daal di daan daan gi daal bëgg nañ mu daal di daan waaye bu bëree rek dañ koy daan. subhanallah sëriñ boobu li mu wax ëpp na. Mhm. xanaa xamul li ci sëy moom mooy yàlla. Mhm. walla yàlla da ko wan victoire yi moom. yàlla da ko wan victoire ni ko victoire yaa ngi nangami victoire la war a am nañu arrêté loolu sëy yàlla day dugal loxoom yonent bi ali salaatu wa ali salaatu wasalaam dugal loxoom Cheikh Ahmed Tidiane dugal loxoom ñaari way dencan tey dugal seen loxo ku njëkk a rocci war nga suñu borom waaye yow mi nga xamante ni si fekke ba ñuy takk fekkewoo ko yëgoo ngoro yëgoo lenn ay làmb yii yëfi àddina la bu daanul mu tekki ngembam seeti leneen wala mu gëm boppam gëm yàlla mais bu mu gëm mukk li nga xamante ni si moom la ay sëriñ di wax yàlla yor ñépp te lii mu wax yàlla mën naa dogal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu bëriwaatee sax am ndam. am na ñu naan dafa bëgg bës moo tax mu génn di wax loolu. non non non bu mu waxati loolu. am na d'après les ñenn ñi li ñuy wax naan dafa bëgg bës peut-être loolu moo tax muy wax loolu. déedéet bu mu waxati loolu mu xaw ma ku ko wax waaye na tuub. bu mu ko waxati bu mu ko waxati mukk mhm. ah, waaw waaw mhm. te ndey gay ku ko naw laa ku ko bëgg laa barke alxuraan te ndey gay dafa bëgg booy Papa Djiné koo bëgg te sëykat la teyit ku ko jàppale la wallahi azim lu ne dégg na ko lu ne gis na ko te ndey gay jonga ma la bu bàyyi woon Papa Djiné day am keneen Papa Djiné day am keneen mais dani moom la bëgg kayit ni moom la bëgg kon nañ leen jàppale mhm. gis nga sëy li koy gën a dëgëral moo gën li koy tàqale wax ju ñaaw amul solo nañ ko jël teg ko nale kooku bu mu waxati loolu mu en tant que jigéen muy sëy comme li nga wax loolu réew meek ñëpp xam nañ ko que Ndeye Gueye mooy booy papa ji ne booy papa mooy Ndeye Gueye ñoom ñaar dañu bëggante yàgg mu jékki-jékki rek ah ñu ne ko faw nga wàcc sax moom moo ko wax sa soxna pour nga daal di mën a daan loolu metti na daw na yaram aussi ak lan ngay wax Ndeye Gueye mu gën a lu gën a muñ balu fetal la de. na gën a lu gën a muñ li mu muñ a ëppali li naan fi ma jaar ko fa jaar taq ban bay géey fi mu jaar ak li mu dégg lépp. mais est na dégg bii tamit. Eh, lii day dara ci moom lii comp la ci moom te macha allah ku gëm boppam la barke alxuraan ku gëm boppam la man ku ko naw laa na gën a gëm boppam gën a jàpp jëkkëram gën koo jàppale gën koo jege loolu du dara. papa booy jinne it li nga xamante ne si moom laa koy conseillé bu mu déglu waxi kenn na jàpp su nekkee nag su nekkee fedd dafa si bopp bi di ko xalaat wala mu koy bu nekkee ci bopp bi di ko xalaat na sàlloo jàpp ak julli te naan astaxfirullah d'accord di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dindi ko ci xelam mm. ba mu set wecc mu jàpp jabaram ndax jabar ju baax boo ko amee danga koy téye te jabar ju baax la am mu mel ne loolu dafa bari ci réew mi euh, sëriñ si la majeure partie parce que exception am na ñi mën ba tey ñi ngi mën ñi noppi ba tey ñi ngi noppi suñu gisee problème sax wala dara dañ lay woo téléphone daal lay génnal ay sarax wala ñu wax la leneen mais am na ñoo xam ne dafa mel ne bës lañ bëgg wala doo comprendre wala mu mel ne léegi place yàlla lañ taxawee parce que dañuy reyaate wala ñuy dugg ci vie jàmbur yi ci sëy jàmbur yi ak lan nga leen di wax tamit bari na trop tant ci rama <laughs> sëriñ si dañoo bari de man xam naa ci kanam tuuti sax damay kaalaw. bis waaw bu ko defee di seet. te seet rek laay def na man petaaw rek laay def. <laughs> rabaan docteur Dieng jàngi bu ma la petaawalee nga xam. dugg ci gàmm bi <laughs> dugg ci dugg ci <laughs> dama lay tooñ. yi def jar naa dugg de man damaa am xaalis nag moo tax. am na xaalis man de dinaa ci dugg. dinaa dugg ci ceet gi de. di seet comme ñëpp. di wax ay tojaange. nit ñi dañ leen di fekk ji ak nit ñi dañ ñeen dañ leen di gëm. waaw dañ leen di gëm dañ leen di gëm wallaahi dañ leen di gëm. waa comme nag euh, nit ki daf lay gëm waxal loo xamante ne si sa diggante la ak suñu borom waxal rek luy defar lu yàq amul benn njariñ. Mm-hmm. amul benn sens. Mm-hmm. képp ku ci nekk daal maa ngi lay conseil pour nga génn ci ba set wecc. Mm-hmm. waaw ndax amul am am amul solo daal. d'accord waaw d'accord moo ngi noonu rafet na su ko defee ñu bàyyi la nga wax sa ay dernier daal di tàggatoo waale. waa xanaa sant la bu baax a baax yow sama doom nga sama rakk waaye sama xarit bàjjan bàjjan national bàjjan international <laughs> macha allah non yow bàjjan international nga macha allah nga nga nga bëgg ma baax taamu ma wax dëgg yàlla chaque jour foo xiiree tantirama tantirama tantirama wax dëgg yàlla boo lay di jël sa alal di ma jox euh, di ma di jël sa ay tissu di ma indil yow xam nga lu ma lay ñaana gudd fa nag wér ñaan yàlla nga am jëkkër ju baax jot na nag ah ku ndayam nangu yow ko eh xam nga ni ku yaayam liggéey moo lay takk man mi barki Cheikh Al ndax amoo daray caaxaan baax nga laa biir nga sa xor rafet na may tagg wallaay looloo looloo am looloo am ku ndayam nangu rek waaw ku ndayam nangu rek dañoo ma may ko bàjjan national. acca moo ngi noonu ku ndayam nangu kaay nga takk ma jot na nag en feuse damaa war a sëyi nag ñu daal di rek caaro yi géwal yi ñëw géer ñi ñëw <laughs> waa univers info ñëw sama waa kër yi nga xamante ne nii kantina ma kenn du ñoom. ñu baax jàpp ma gën riche. univers dañ maa defal loo xam ne. dama ko du ma ko nëmb fenn barki Seydina Muhammad dañ ma yëg dañ ma bëgg dafa mel ne maag ñoom ñoo bokk lay ak baay aw ma seen fay. moo tax damay ñaan yàlla musal ma musal musal musal ñu si cat su may wax sax damay can càng barki yonent yàlla Muhammad parce que duñu tricher duñu ay naafeq ay nitu kase lañ soo ñëwee univers ñun ñoo bokk lay ak baay kon mi ngi noonu yàlla ñu yàlla aara ah. jëkkër ji nag na ñëw takk ma tanti dama dégg ngeen li ko sa yaay nangu rek kaay nga takk ma jot na nag 2024 bi nag waruma koo génn nag damaa war a sëyi sama papa bëgg na ma sëyi ah sama taaw yaay bëgg na ma sëyi aca <laughs> moo ngi noonu tey nag damay daal di nuyu sama mag bu baax dëgg yàlla koo xamante ne nii amaat dafa baax lool bëgg ma am yar am teggin di sama jëkkër aussi di série Seynabou Diakhaté maam say ngeen may ma mu nuyu ko muy Issa Sall borom di foncé di jaay ay pièces détachées dëkk ba borom yaay ju baax ji baax lool am yar lool am teggin lool papaay bébé ngóole mi may tourneel kenn du moom ci man en tout cas di ko ñaanal yàlla mu see ko si cat képp ku sa oto am problème nag wala nga bëgg ay faar yu baax demal seeti ko merci beaucoup di jaajëfal amaat bu baax a baax moo nekkoon di cadre lu nice su rafetee moom la su ñaawee man la